ñi fi nekk ndaw yi tey am lu leen joxoñ ci fa ñu juddoo fa ñu màgg fa ñu leen jure ñu téere seen doom bi ëtt génn ko ci tali bi dagale ko dem ca penc ma dajale fa ñu pencoo ko rek a topp mag doom topp bàyyi ñu génne ne ñun la kenn ku mën a xari nag dañ caa bokk abbuñu ko lebuñu ko lu ñu lew doom ñu dëkk yi tëngeej tëngu géej fi ñu bindee histoire Sénégal jakalo géej am kosok soog kaw si diggante ñaari am fi ñun ñi nga xamne kuñ ci tagg sama nga xam yaay kan ko bokkal ku bokkul ak yow lu ngeen bokk am lu ngeen war a ma japp nek ñu am nak kes di doxé bur nawlo am nawlum te ngeen tuddu ko démocratie sociale jappal ma japp yéen ci ñi fi jot a génn di leen ko présenté yor ndomi tànk yi ku ci nekk ba ngay génn seen kër am na koo la fa mag wala koo xam ne moo la mag wala yaa ko mag waaye bu ñu d'accord yow mi génn ko yor ba ñu ko waxee cëg fu ñu ko génte ak fu ñu nekk si ñun kenn yorul li nga yor dañ la koy yar te xamoo kii yor ñu denc ko ñoo ko yor tegee nag dafa am mbàkk bu tuddee boo tegee ma wax boo tullee ma bu mu ëpp dee lu tax parce que way yu dafa gaal kenn koy cib teeru ñu ko seqal nag bu ñu bokkul ci fukkee ak ñaar du ñu yuur du ñu xooxo bopp du ñu waneer du ñu tëdd du ñu mbijjeen du ñu xaagaan du ñu sumbaar te du ñu dumbaar du ñu sekkees nañu bàyyi xam ne may nañu ëttub jéew nga jàngale waaye kenn mënu jël sunu askan gi ñu moom di ko doxee di ko wax ba tax na nanguwuñu nag ay nit ne ñoom dañ fiy yónnee ëmb nu def ñu daal di wan ak ñu ñoom ñu du ñu boot biir bu amee nekk du bot bu si ginnaaw bu amee nekk ginnaaw bu amee nekk du bot biir bu amul nekk mm-hmm. te ñu ne ci amul benn lu may ngarloo ak nawlu tey te dépend lu ci Dakar la ñu bëgg a nguur gi ak Sénégal ak àdduna bi yëpp nañ du kenn koo xëy ne juddoo nga Dakar am foo way bu ne yow jiite nga lu ci li nu yor nanga sa bopp du cosaan du aada du sa juddu noo toll na te ku nag kuñ ciy tënk na nga tàggu sa baay ak sa yaay ak saw askan laaj leen ndax fi nga jëm war nga leen laal wala waroo leen laal yàkkamti nag ci ñoom ku mu tax a waaye si fi saaw du ma ne doo yegg waaye loo am di nga jënd ordonnance su ngeen ñun li ñu doon lañu doon que fi ñu ko doone fi lañ ko doone fi lañ doon doone xam nañ suñuy maam yi yoroon kër yi yoroon ëtt yi te ñu leen baat yi ñoom xam nañ seen maam yi ñëwoon di àpp suñuy maam ak toogaay wala nungul leen kàddu 1795 tubaab bi yónnee na si lébu yi ñu ne ko duñu la déglu parce que ki nga nu yebal bokk ci askan may nekk na mu jàngal xale yi jàngal suñu askan jàngal luñ si diine waaye am na lu ñu gëm <coughs> lu ñu gëm aada bi ak cosaan yooyee ñu yor nag mu bi suñuy bagage te ñu denc ko ba tey mhm. boo nuuree di nga ko fekk mhm. boo gasee di nga ko fa fekk mhm. boo téenee di nga wet boo jeexee di nga ko andaale li wax ngoon ci waxtu yi ñu toll nii lii soxal président soxal ñu muy mbas mi yàlla na fi te ñi ko wax ne ko yéen liñ ci ànd ak jub ak jubal ànd si yar ak teggin parce que dëkk bu nekk tasaaroo yow way wa tasaaroo ànd ba tasaaroo dagale fa nag pour séddale ko dana xaw a jafe kon bu amul jub ak jubal dëkk du yokk te nag président nag ak réewam mii mu yor président ak armée président ak santé mënuñoo topp Sénégal di leen wéral que nit ñi wéraluñu seen bopp ku ci nekk na nga dimbali sa bopp sa biir ñu ci biti ci waxtu yi am na jamono boo xam ne nag dafa su suñuy tefes ñu ngay laal xàmba gi suñuy cap suñuy dëkkuwaay waaye la mu laxas xamuñu ko tubaab ba ñëwoon ca buur ba di wàññi juróom fukki tànkam jëlee ko sa sambara ga fa mu yem ca gannaaw ba yéeg ca kaw ne leen fii mooy tefes ñu ne waaw mu ne lekk topp yéen ko tey littoral ca Touba domaine public lay doon ak maritime ñu di ko waxee tey fa ñu ko bindoon ci 1681 ca convention euh, ordonnance Colbert loolu yàgg na di tey bëgg nag comme ñun li ñuy nekk dañu ko dencoo ko mën nañ ko wax la ko jëlee njëre yoof ba njëre Pancou xam nañ liñ fi moom ñun la muy nee boo tëggee ma wax boo tullee ma wax ñu wax ne rek topp maag doom topp baay waaye way ñu dugal Ndakaaru ba tax ñu yor seen sëriñ Ndakaaru ñun yow ñu ko tëngee bay dugal fii seeni way suñu way lañu way suñu xeet fukk ak ñaar di askan xëccoo ñoo kenn nag sa xilaaf ak sëriñ mën nañu bàyyi li ñu doon ak lu ñu ko juddoo ragaluñu nag que lu mu leen jaral rek jaral nañu lu ëpp loolu ñu wax ne aussi jamono bi ñu toll nii departement de Tëngéej particulièrement li fi nekk dafa ëppi loxo te day ëpp dayoo sunuy maam 1905 dañu demoon ca France bindu ca bindum suuf sa ba waa Monaco di roi toog église ba toog fa république ba toog fa ñu seddañ suñuy cëri suuf ñu bind ko ci ay këyit moom ko ñibbisi suñuy këyit mag indépendance Sénégal ay nit jàng bokk ci nguuru Sénégal ñëw toog ku ñu naan Mamour Diallo suñuy suuf yi nga xam ne moo ko bind ci këyitam di ko jox ñu ko moomul ànd ak ñi nga xam ne ci njublag lañ ko defee ak tappale ñu wax que ne foo mën a toll foo nañu dégg ci Sénégal duñ la bàyyi tey duñ la bàyyi ëllëg waxuñu 94 milliards 777 bi sédiment bi ngeen gis nii tey fi mu teggu ci bawam Massamba jël lo ay suba mi jël jox ko ben syndicat enseignement supérieur ak ñeneen ñeneen yo xamé jël nek ci wa Kër Mandiaye ciandum arum geey kam kam un kam deux yoy dina fi ñëwaat loolu nak bët Sénégal nga xamé ne gi Baara Samba ak juróom téeméeri famille ak juroom ñeent ñoo dajé won di leen ko jox ak bët Sénégal

parce que président de moo ñu mën a àtte ku lu ko fi jóg waaye ku mu ci ku nekk bu nu soxalee ba nu jóg ñëw taxaw ca fii làmba jooju la cay mujjee du neex te bu leen ko sàggalee wayu dëpp gaal la képp koy ci teew fili fili jox nañ ko 145 hectares ci benn arrêté bu Morgueil Ngom waaye si buxutaan la yemoon fili fili dafa doon engagement ci région yi nga xamee ne moom la waroon béy si 300 hectares yi taxul 700 hectares bu Sénégal bàyyi na lépp. di ngalab lépp di wërale lépp bind lépp ne moo ko moom fii fii xaar ñu ñu ngi ñëw di ko digaalee ñun ñoo am ay suuf liban doo jël suñuy suuf beneen bi ci des it mooy maire yi nga àndal ak seen i tappale yor seen tappale di bind lu ñu lu ñu leen santewul def seen i njombe bu ko laxasoo ak mbuboo Macky dañ leen simi mettre leen en nu parce que ay famille ngeen koy ay famille leen yóbbu si yoon ça soit très clair ñu wax leen aussi ne ay doomi tëngeej dem ci géej gi nu ak gaal dem tool mënuñoo dem faneen bu ñu génnee jam ñaayi jom yi fu nu moom lañ toog fi ba jandeer Senghor dagg na ci la dindi yóbbu na ay nit ak seen i këyit mais yóbbu suuf sax suuf na kenn ko def ci wàllis kenn du ko def ci saak kenn di ko gàddu yóbbu non ko moom tam leen di xaar ñu président mu yónnee arbitrage bi du ko gën a gaaw parce que lii paree tàkk fii moo raw la ñuy wax ca gàddaay raw ca faneen ak faneen te ay nit ñoo ko togg defe ko noonu jël lu ñu moom te ñi koy jox ñu yor koy saak ñu dëkk ak ñoom seen i maam doonul mètre carré amul woon ak tool am nañu seen maam doon na ko fi woon waaye ñuy xañ ci yu baamam doon na moom di ko jox koo xam ne sama xarit rek nga courtier lu mu leen jaral na leen ko jaral ba ngeen diwee di sangu ñu fekk nañ sangu nañu ba ngeen di loot di naan naan nañ ba pare si tund wi tant que ginnaaw baa ngi jóg ngeen jógee di duggee bari ñi seen saafara ak seen i xërëm dina wadda mu leen ci dara ci yéen. ba bëgg rek alerte bi ma la jàpp président de la République ginnaaw bu ñu ko gërëmee sargal ko di gërëm it sunu frère Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé. ak équipe bi mu andal yépp ci taxawaay bi mu taxaw dégg naa sax léegi daal am nañu léegi léegi daal kenn moomu ko ku mu ne nga baax lamba jàng ko làmb jàng noonu bi tànn sa bopp doo dem de kon fi ngeen la jogal nag yàq moom bokk na li nuy wax nag suñu jëmale ñun li ñu koy wax rogi ngi si ñun ka ñoo koy wax mun sa yeggee yàlla baax fii dégg ñu ginnaaw bi nga xamee ne am na lu ñu ñor mooy bii nga xamee ne fi def teer bii teer bi ngeen di gis dañ fi yëkki ay nit mais fi mu bàyyi yëpp muy ay bayaal amatuñu ay xale fu ñu jàngee arab amatuñu ay xale fu ñuy defee vacances amatuñu ay centre social amatuñu ay dispensaire amatuñu ay même case de santé sax amatuñu ay boutique amatuñu ay ay espace yoo xam ne dañ ci loisir ñu bëgg nag CNLD koy laaj pour ñëw defar ko quartier bi ak conseil de quartier yi ñu ànd jox leen ko ñu gérer ñu ko ci quartier yi pour que nit ñi mën a am vraiment ay jëppandukaay bu jumtukaay yoo xam ne ñoo ko mën seen bopp maire bu ko fi délibéré wala nga jaay ko di ko diggaale ñun parce que fay nañu borom bu pare état ko wax loolu état lañ ko laaj li mel ni Val d'A nag mënul nekk Tëngéej ñu yokkale ay jumtu jumtukaay ci yoo convention agrémentaire sant ko ko ñu ngi laaj enquête du ubbe ko ko du jël ben xalé du embauché kenn li muy def ci environnement dañ ko natal te ñu fay ñu ku melni lay ñu ngi lay gëreum di la sant dégg lañ sa yóbbante ci taxaw bi nga taxaw ko and ak tëngee and ak CNL and ak doomi tëngee wa nga dëkk ku ñew dina bàyyi loolu nit nang ko bayyi waye ko xëy liggéey ko andi di nga and ak que seede bi ci liggéey la taxaw li fi jot a génn ngeen dégg ko ñoo ko wax ñoo ko doxee noo ko bindee noonu suñu partenaire c'est suñu programme c'est e. soo ko sim na bi ñu koy jaay dañ ne woon groupe français ak groupe sénégalais groupe français bi ànd ak Crémier groupe sénégalais bi ña ca yebaloon def nañu bind nañ ci jox nañ ñu ko soo ko sim am na pourtant bu war jox waa communauté Tëngéej mais soo ko sim famille Crémier ba bañ fa génnee la ñu waxoon defuñu ko parce que kayit yi wute nag li ñuy wane tey ak ni ñuy doxalee ñu bëgg a kayit yi génnaat ca concession ba ñu xool groupe français bi li moom moom xool groupe sénégalais bi li moom ak pourcentage bi nga xam ne waa Tëngéej jëkk moom ñu delloo soo ko mu ngi jël suufi jàmbur suufi famille jàmbur gas lañ ko sant woon mu jël suuf soo ko ma ngay tàllal di xala muy dem di bëri muy dem di jël alal di jàmbur suuf su mu moomul ko delloo. benn kàddu soxla ñu ko ci wax ji lu may kàddu Macky Sall président bi mu àdduñ ci ñi nekk Dakar nag nga xam ne ay dividende leen tax a ay intérêt personnel moo leen tax a jóg ñuy ci lu nekk ngir seen bopp la ñu ñuy gunge ca la ñuy uti suñu wax ji ku ko wax te bokk ci wax ji di yàq suñu wax suñu wax ji ñi ko wax da ko wax yàqu ñu wax ji ku ñëw nag di ko yàq di ko dëgg kon loolu la ñu bëgg daal président ñu ngi leen lay taxaw di renouveler suñu adhésion ce programme bi nga am ànd it ak say ministères ci politique nga défense parce que nee nag di la laaj ne situation bi garaaw na parce que Mauritanie te parce que buy ñëw naa dafa nekkoon dañuy tàggoo ak Sénégal yooyu liggéey ak ñoom jafe-jafe yi tàmbali nañu ñu ngay téye seen i alal téye seen i nar téye seen waraf ak seen i yelleef seen ñibbi seen metti te mënuñu faa jege loxoy neen

ñu ngi la koy yeesalal ci turu CNN jiital ci le président euh, Alaaji Malick Ngom di Maodo grand sant di wax ne fi ñu toog ñëpp nag ak li ñu doon na ci intérêt bi ñuy doxee ci CNN bi dem jëm ci askan bi foo leen ca oo ñu nga ca foo ca taxaw ñu nga ci loo ca bëgg ñu nga ca jërëjëf